salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi diggante maam Ndiaye Savon ak mami Cobra dama ne la man Adama damay jël samay responsabilité sëñ Bada daf ma doon ñaan pour mu wax ak mami Cobra man maa woo sëñ Bada enregistré ko yónnee ko mami Cobra di ko wan ne ko wax naag ki nga xam ne moom mooy sëñ Bada sëñ Bada damaa fekk ci live ba tay maam Ndiaye ne ko xoolal sa wéef yónnee naa la cinquante mille yónnee naa la cent mille yónnee naa la vingt cinq mille moo tax xaalis boobu maam Ndiaye Savon di ko jox moo tax muy attaqué dal ci kaw nit ñi parce que maam bu ko yónnee xaalis rek. lu mu sant loolu lay def man fekke naa ko ba tàyyi te moom du ko weddi looloo tax ma yónnee ko audio bi Mamy Cobra ne du ko baal Mamy Cobra da li ngeen koy wax da ngeen koy toj Mamy Cobra dañ koo toj Mamy Cobra lu ñëw mu défendre Mame Ndiaye sonn na ci Mame Ndiaye ban koy wooyee dafa ma Mamy Cobra xanaa daa tàppet Mame Ndiaye safon xanaa Mamy Cobra eh, jéego xawma lan la xanaa Mamy Cobra moom Mame Ndiaye dafa yor lëfam wala nangam nangam ma Mame Ndiaye yorul dara déedéet da koo defoon xarit mu jege ko rek mu di ko jàppale wan ne xarit bi muy woote ci moom dëgg la sëñ Bada ci boppam mun ta weddi na maam Ndiaye da koy jox xaalis di ko wéef man ma fekk ko gisal ko sama bopp muy dal ci kaw nit ñi weddiwu ko sëñ Bada woo na ma léegi-léegi nii appel ba def ci Waly Seck ma ne ko bul waxati ci Waly Waly moom man rek aw ma ku ma promettre wax ci moom man rek yaa ngi dégg audio baa ngi nii ñu dégluwaat ko démb waxoon nga ci moom ba léegi da nga ko réglé dinaa ko réglé mais bu may réglé di ñaan ma mi ko balaa da ngay bàyyi ku la yónnee xaalis maam Ndiaye bu la joxatee xaalis bu fekkee mayu la ko ci gratis da nga koy dugalaatal dayam am nga fulla da ngay jël xaalis bi nga delloo ko ko nit noonu ngay doxee ku la utiliser nga bañ parce que Sénégal nga nekk sëñ Bada ñun ñi ngay toppandoo ñi ngi fii ñun kenn mu ñoo jàpp yow tey ji ku la soxla nga dem di da ngaa fàtte. non boss man xamal naa la ñaar sax man problème yi bëgguma ko sax quoi nga da ngay génn ci yooyu yaa ngi nii yaa ngi nii di waxaat léegi ci Wally Seck Wally Seck kan moo la nga wax ci moom. yaa ngi gis nga ko affiché ay caat di wax Wally Seck man rek maa mën a am droit ci moom lu ma naqari wala loo xamante si nii neex na ma mais kenn amul droit di taf Wally Seck di ci wax n'importe quoi du yow du keneen ak keneen tey yaa ngi ni di ko def xam nga loolu tooñ la. boos léeg a waaw mais da ngay bàyyi loolu lu jëm ci Wally bu ko laalati maanaam Wally moom bu yeboo lu mu mën a def ci àddunaam bàyyil mu sedd lu baax wax ko lu bon bu ko waxati bugguma loolu. li ñëwaat ci diggante Mame Ndiaye Savon ak Mamy Cobra Mamy Cobra naa ji mu wax ak moom mais yow loola nit santati bu la joxee xaalis di la wax loo ci ay Mamy Cobra saagaal lëfal ndayam on est d'accord non yow boobu na sax loolu du problème loolu na sax xool seet yow dootoo dégg benn coow jeex na loolu laa bëgg. kon pare naa ci boole. kon baax na amu pare la kon si kanam. mi ngi noonu man kay dama waxantu.